wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nga xam ne yéenay topp seen programme almouridiya kon eh, di santaat bu baax a baax a baax waaw waaw salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Modou ñu ngi lay dégg bu baax eh, di leen nuyu di leen ndokkeel ci weeru koor bi Euh, tey jii ni nga ko waxee di fukki fan ñaar ci weeru koor dëppook le vingt cinq avril mille vingt et euh, muy bisub dimance boo xam ni euh, ñu ngi ci weeru koor bi ba tey mel na ni fukki fan ak ñaar tey lañu ñu toll ñu amaat taw féexu jokkook mbokk julli ci mbokk taalibe yi jokkook ñi topp seen télévision almouridiya ci programme bi nga xam ne cant gu yër war nañu ci ndax sëriñ bi mayet nañu taw féexu ñu dundaat loo xam ni wax nañu ne kat jamono yi sëriñ bu mag bi lañ ko njëkk dundu muy loo xam ni dundal na weeru koor wi ci njàngum xasida moo xam ni ñi ngi koy def ci kanamu sëriñ bi muy liggéey boo xam ni ñi ko yëkk ñu fàttaliwaat ne sëriñ bi isbu sarxee la ko dénk ñoom itam biñ ci defee liggéey tànn juróom-benn kuréel yoo xam ni ñoom ñooy ay ay loo njàng mi tey nag ci bisub dimanche bi di fukki fan ñaati ñaar ci weeru koor kuréel bu mag bi muy kuréel 1 bu isbu tarxiya bi nga xam ne sëñ Ablaye Diop moo koy jiite ñoom ay njàng ñoo ko war a def diggante 17h30 ba di h 30 ci kanamu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. Eh, am nañ taw féex nag dalal ki nga xam ne mooy sëñ Ndiaga Gning muy kenn koo xam ni ci kuréel gi la bokk eh, bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi ci wàllu woowu eh, ñu war ko jox nag kàddu gi ngir mu jottali ñu programme bi nga xam ne moom la ñu jottali tey sëñ Ndiaga ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ci teewaay bi. Euh, di la jox rek nga jottali mbokk taalibe yëpp li nga xam ne mooy programme bi ngeen ñu àndil tey euh, muy kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah te sëñ ko jiite tey jii lan ngeen fas yéene jàng. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di feeñal suñu mbégte ci euh, li nga xam ne moom la fas yéene def muy ñëw leeral programme bi nga xam ne moom la ñu war a baaxee mbokk taalibe tey tey nag. ku ne xam ne ni eh, ni ko ni nga ko waxee rek maanaam kuréel gi njàng mi sëñ bi istarax la dénk waaye ci biir daara ji dañoo tànn juróom-benn kuréel yoo xam ne mate nañ ko ci fànn gépp ñu dénk leen ko yàlla def ñu koy ay ayloo tey ne kuréel gu mag yi di kuréel istarax ñoo ko aye tey ñu war leen ab dikkee yaa mërk yaa mëkkër ma def waa kër sëñ Masamba mooy bu naax bi sëñ Mayib Guèye salaahi bi fadlillaahi sëñ Aliou Fall ak alaman eh, sëñ Abdou kon yii daal mooy xis yi nga xam ne moom lañu bëgg a baaxee dongee tey ci barke sëñ Touba jërë ngeen jëf ñu ngi sant nag baax a baax di leen gërëm jërëjëf. jërë jërëjëf sëñ Ndiaga dafa naa ni ni nga ko waxee programme mën na ni daanaka ñeenti xasit la ak xas gi da ngeen di ñaane muy itam programme boo xam ni ni mu daan demee rek lay demee waxtu lay jàngal wax njàng mi waxtu lay diir. waaw njàng mi yëpp maanaam bu ñu tàmbalee 17 yi demi 18h30 dañuy ñaan nga xam ne waxtu lay yem lépp ci waxtu lay yem kale nañ ko noo xam tey maam du ko du ëpp moom une heure temps rek lay jël. bu neexee yàlla incha allah jërëjëf. jërëjëf sëñ Muxtaar def naa mën naa la bañ a téyewaat njàng maa ngi lay xaar mun nañ la yóbbu nga bañ dem ci kuréel gi euh, muy kon ni ngeen ko déggee ci gémmiñu sëñ Njaga ñi ngi moom muy kenn ci ñi taxawu njàng mi ci biir Hizbut Tarqiyyah mu féetee daaray Dakar euh, ndax wax nañ leen ne kuréel mooy kuréel bu mag bi nga xam ne kuréel national rek lañ ko mën a tudde ndax ñi ci ëpp bu dee dakaar lañ féete it am na ci ñoo xam ne Thiès lañ féete am na ci ñu féete euh, Touba am na ñu féete Rufisque ak ñennat ñoo xam ni benn bennat yoo xam ni ñëw nañu euh, ci tànn gi ñu leen tànn ci jekk gi ñu jekk njàng muy kuréel bu mag bi nga xam ne ñoom ñoo aye tey njàng mi kon lii mooy li nga leen andiloon tey muy fukki fan ak ñaar ci weer Ramadan euh, dëppoog 25 avril 2021 ni ngeen ko gisee salle bi moom it fees na fees na bu yàgg ndax dibéer ji dafa mel na ñu bare ci la ñuy gën a am jot ngir ma nekk si fii waaye loolu buñ ko waxee sax ah mel na ni sax fi mu ne amatul bis boo xam ne bii ci la ñu naan dañuy teel a fees wala teel fees bis yëpp nit ñi dañuy teel a ñëw ndax yàkkamti teew teewlu njàng mi ah, ñuy fàttaliwaat rek li nga xam ne bëggug sëriñ bi la muy ñu sàmmonteeg ndigalu ko docteur yi loolu defe naa ni loolu ah dañ koy wax ndax sëriñ moom noonu la ko bëggee.